ñu ànd ak yéen seen émission Kouthia fas yéene ñëw ci produit yi nga xam ne nag tey suñu table gi macha allah am na ay weer ci ginnaaw benn weng rek moo fi nekkoon waaye yàlla dimbali ñu ba fu mu ne nii table bi macha allah te incha bu soobee yàlla table bi dara mu ci dem ba nekk bitik bu rëy bu soobee yàlla parce que toogoon nañ ci ay moment yoo xam ne benn tund moo fi nekkoon ñu daa dee wéet mais gis nga mbiru yàlla yàlla buy ñëw kenn du xam kenn lu ko baare kon gars yi bàyyi leen ñu moom mooy plateau Kouthia soo mbokk yi mademoiselle promotion du ministre euh, euh, Mati moom moo ñëw présenter produit tàcc leen ko loxo bu baax Mati. voilà Mati rapidement. baax naan bonsoir tout à tous mbokk yi xarit dal leen ak jàmm ci suñu biir émission bu mag bii di émission Kouthia Show ngir ma présenté leen nag sama produit yi nga xam ne moo nekk ci table bi tey nag dañ fee am gan gu bees mu nekk Bisco Bisco nag nekk bonbon yoo xam ne nii macha allah Bisco Rio ah, dafa am Rio. moom fii nañu ko defee mhm. vanille bi la. vanille bi bu bleu bi mooy vanille bi. Mhm, am na aussi chocolat bi dëgg la. gis nga ñaar yi. waaw ñooy. ñi nga xam ne fii nañ ko defalee ci réew mi dëgg la ba pare macha allah a neex ñëpp ko mën a utiliser ma nga la te surtout xam nga dañu nekk ci rentrée cent francs lay jar nga macha allah mag ak ndaw ñëpp ko mën a nga tey moom laa ndekkee gis nga sama am benn paquet bu nekk six bonbon ñoo ci nekk dëgg la macha allah ba pare nag neex tamit ndax fii lañ ko defaree mhm. app bi am na bonbon yoo xam ne bitim réew lay jugee dëgg la dana def poor ay ñaari at dëgg la ñu ñooñu changé emballage bi bii bokku ci. ay doomu réew mi ñoo ko defar. dëgg la allah kon naa ne jaratul ma ciy faram ndax dégg nga la expliqué yëpp te Bisco noonu la demee nag bonbon bés naa leen daw foo leen dugg ci boutique yi am nañ ko xale ak mag ndaw ñëpp ko mën a utiliser ma ñëw nag ci li nga xam ne gaamu CT plus dëgg neexul waaye na CT plus papa boo xoolee xam ne groupe Kouthia xam ne euh, Abou Bilal la Abou Bilal ah. CT plus ngi koy dagg te dëgg neexul xale yaa ngi mel ni tàngal ah waaw waaw dañuy ñëw ci li nga xamante bii ne mooy seete bi nga xamante ne bii carotte la bii nee naa la xale yi boo bëggee weex taal ba mel ni xale yi nii classe ak ne bii mooy gaamu seete plus bi nga daal na gaam bi mi ngi nga xamante ne bii muy pol teint noir bi la neex da ngay mooy seete plus bu blanc bi moom tamit gaam la tube beeg savon beeg yëpp ak gel bi macha allah lépp ngi ci biir maintenir sa teint ñaari gaam yaa ngi noonu ma ñëw aussi ci li nga xamante ne bii mooy gaamu madaar madaar madaar nag moom tamit dafa ñëwee gaam li ci ëpp solo nag bii nag moom da nekk jetol mu nekk en promotion boo amee xale bu fekkente ne muy mag muy ndaw boo daggee da ngay daal di jël li nga xamante ne mooy coton daal di koy fomp rek deret bi day daal di arrêté bu dee ne da da ngay daal di toqal ci ndox daal di songoo nag daal di mhm. la booy sangoo dëgg la booy fóotee mhm. eau de javel am ci ak na gaamu ma ne mooy l'écran nee naa la bu ñu nee jamono tàngaay ku nekk xam na ne da ngay soxla féex da nga koy daal di xóoyal def sa frigo daal di naan booy defal sa laax da ngay daal di def macha allah booy defar sa cere noonu bu fekkee dangaa tamit da ndékki moo ci gën a gaaw te li ci gën a neex mooy mooy meew nag mooy li nga xam bii pour raxas pour raxas raxas bomb bale nee naa la lépp looy raxas mu tilim niin ës oto lépp daal macha allah lii nag mooy savon liquide da nga koy daal di utiliser nag moom nee la pour sëcc rek moo ko tax a jóg boo ko defee say loxo xet gi yaa xam parfum bu neex kon ah, jaaraama ñi kenn du ñoom moo nag suñu gan yi tamit waxaat ci ñoom dëgg la yàgg dëgg la macha allah kon mhm. euh, mbir yaa ngoog kon li ma leen di wax table bi feesagul leen visibilité bi fii nii la ci biir ah. émission Kouthia Show ci bëggee ñu faram fàccee la say produit macha allah da di def li ngeen xam te ne mooy suñu sponsor yaa ngi fii la fii la fii daal sponsor fii la émission bu baax baa ngi nii sponsor bu ci bëgg am visibilité nee naa ñëw fii ci biir émission Kouthia Show ñu daal di defante yow lu baax tarkaal la kon bi nga commencé présenter produit mm-hmm. produit yi commencé ñëwaat dëgg la maa bëgg bu gën a loo xam ne mm-hmm. njiglaay la yàlla koy def dëgg la am na ñoo xam ne yàlla mooy def bu ñu taxee fen lu ñu laal mu barkeel dëgg la dëgg la moo tax ma lii ngay def nii dee ci góorgóorlu parce que am na ñoo xam ne dañ ñu ngi fii ñoom bu ñu sañoon li ngay def nii da ngay siburu war a nga sot doo ñëw te boo ñëw ñëwlee dañ koy jàng mokkal ko te boo ñëwaatee fekk ñu ko mokkal wax dëgg yàlla ñooñu dañ naan ki fi ki remplacé ki dem moo leen gënal mhm. moo tax bul tardé dëgg la bul feebar bul sot amiin même boo naree dee sax raamal ñoo def ko dëgg la parce que ñoom bu ñu sañoon tey waaw da ngay sot waaw war a ñëw kenn ñu remplacé kan la ñan la ñoom ñu ngi fii say morom fii nii nii nii nga bokkal waaw mootul sax di lekk ak ñoom del wis ndox parce que ñii seen affaire dafa garaaw keroog ñu lay tojal kaani ah. ba nga lekk far nga suur doo xëyee doo ñëw ñii boo ñii bëgguñu la say noonu ñoo fi nekk <laughs> ضريحة لروض القطب ذات أبو الفيض الإلهي أبو العباس أبو العباس mbégte konta contentement bu makka ànd ak yéen seen émission Kouthia Show di sant kilifa diine yi ginnaaw yàlla mi nga xam ne nag moom moo ñu sàkk def ñu ay doomu aadama ñu koy sant sant Seydina Mouhamed PSL sur lui di ñaanal njabootu alaaji Cheikh Omar Foutiyou Tall yëpp nag waaye jiit suñu ñaari waajur bu dee ñu ngi dund yàlla na fi yàlla bàyyi ñu bu dee nag dañoo dund àdduna yàlla yàlla xala ci àdduna gën a kawe ñun suñu waajur bu jigéen ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm te sàmm ko sàmm mbooleem julit waaye tamit mbooleem waajur bu jigéen ñu ñaanal leen yàlla bàyyi leen fi suñu kanam ñu yàgg fi loolu te yàlla tegg bépp gàllankoor ñu ngi tàmbalee nag di sant yàlla di santaat yàlla ñetti yoon waaye nag di gërëm Seydina Mouhamed paix et salut sur gi jàmm ba ñu mun a am tal ko di ko ziar di ko ñaan di ñaanlu waaye tamit lépp rek ñu dénk ko moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu nuyu njabootu Cheikh El Hadj Omar Fouti gi yëpp te teg nag suñu baay sëñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des Mourides sëñ Mbay Si Mansour xalif général dey Tidiane di nuyu tamit suñu papa sëñ Abbas Mbàkke xalif bi nga xam ne moom mooy xalif Daara Muxti papa Malick Si bi yoro kaddu euh, euh, euh, kër kër kër suñu papa Mbay Si Mansour moom mooy nag ki yor kaddu kër ga ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram ak sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalif bu Medina Baye sëriñ imam Abdoulaye Thiaw xalif bu Laayeen ak Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass ca Léona Niassène sama baay la ñu ngi koy ziar imam Cheikh Cissé bu Medina Baye moom moo fay imam ba fay jiitu yàlla yàlla yàggal ko fi mu yàgg fi loolu te wér te bañ am benn gàllankoor Serigne Cheikh Bekay Kunta xalif général bu Ndiassane Serigne Cheikh Tidiane Seck xalif bu Thiénaba Thierno Bachir Tall ak euh, Euh, ki nga xam ne nag mooy xalif Omar yéen ak doom ja Cheikh Omar ñu ngi koy ziar di leen mooy gàmmu gu mag gi euh, Serigne Mounirou xalif bu Serigne Amadou Baro Jigéen Chérif Khaya Aydara ci Nimzat Serigne Mouhamed Lamine Ngom ca Paal Cheikh Ahmed Tidiane Ba xalif bu Medina Gounass yàlla na fi yàgg te wér Serigne Youssoufa Mbaye xalif bu Maam Cheikh Mbaye xalif bu Nand di ziar tamit ca Serigne Maam euh, xalif bu Jaamal Cerno Madani Tall xalif bu Cerno Muntaga Tall njabootu ma foofu ca Bogol yàlla ko yàlla dafal jàmm di ko ñaanal fan bu gudd ak guram ak Cerno Hamdou Rabi Wan moom tamit mooy président soppe yi di taalibi Cerno Abdourahmane Bari yàlla na ko yàlla dafal jàmm ak fan bu gudd ak guram docteur ci zahir ak ci baatin ak jëwriñ Moustapha Sène yàlla yàlla dafal jàmm ñu ngi leen di ziar sama bàyyi nag ma ca Fuuta di Cerno Sama Sa Morabi yàlla yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko jàmm moom tamit waaliyu kaamin la di ñaanal jàmm waaye di nuyu góor gi Samba Ndiaye représentant xalifa général bu Tidiane ca Ziguinchor président des imams yi nekk ca Ziguinchor di taalibe Cheikh bu mag yal na ko yàlla defal jàmm moom góor gi waaye suñu baay tamit di imam Fansou Bodian xalif général de la communauté Joola nekk ci Ziguinchor ñu ñuy tamit Serigne Cheikh Saliou Mbacké xalifa Serigne Saliou Mbacké Cerno Bokar Alpha ba a fonde barke démb la doon def bi di samedi dimanche bi mboolem taalibe bi xam ne ñëw nga war a ñëwoo Cerno gërëm na la sant na la ñii ñëpp gis na leen nee na bég na kontaana na di ñaanal ñëpp nag déwén bu kenn manqué na ñëpp teew Cerno Bokar Alpha ba waaliyu kaamen ca war a fonde moo ma yóbbante loolu Cerno Mamadou Haadama Gay nekk sa ñànk idi alaaji Mouhamadou Gay nekk ca Mbour Tefes sëñ Habib euh, Gay muxaddamu sëñ Mansour Sy la rabbi taala anhu ñu ngi koy ziar alaaji Ousmane Ndiaye waaliw Kaamin di ko nuyu sëriñ Mama Sugu Waadaan waaliw gu yaram moom mi seexal papa Awa Kara Adama Niang borom xëcc gi yàlla yàlla guddal seen fan alaaji Seydou Sow sopp sëñ Fallou dëkk ca Passy sëñ Abdou Karim Mbacke borom pale ba ca Ndindi ak Modou Fleur bëkk ba kii cardinal Théodore Adrien Sarr monseigneur Benjamin Ndiaye abbé Jean ak mboolem chrétien boo xam ne yaa ngi ci paroisse yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla dafa leen jàmm ci barke yonent yàlla Yesu Christa bi nga xam ne moom la ñu gëm euh, yàlla yàlla jàppale leen taxawul leen ba lépp loo xam ne dugg nañ rek ci barke yéen sa borom xel mu sell mi mu daal leen jàppale Serigne Cheikh Tidiane Diaw ca Yaraax maître Fatima Fall responsable politique nekk ca Ndar Serigne Mansour Sarr chef religieux dëkk ca Budi ma waajal gàmmu international bu Budi moom mi nga xam ne moom lañ dénk sama yaay Adja Kine si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaxtum bi ñuy jooy ba tey noppi guñu yàlla na yàlla leeral bàmmeelam waaye di yóbbu ngeen turam tey foo xam ne wax dëgg yàlla biir réew mi ak bitim réew yëpp ñu koy woo ne nag say doom yaa ngi lay gërëm di la sant nee na Télé Futurs Médias ca kaw émission Kouthia Show ca moom Thierno Aliou Maska yal na ko yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram mi nga xam ne ak sama yaay Adja Daaro Cissé yal na yàlla guddal seen fan alaaji Ibrahima Mbaye maa ngi yuut alaaji Ibrahima Mbaye xalilula di di ko ziare bu soxna eh, ak soxna soxna Fatou Mbaye alaaji Aala Mbaye bëgg mbaxal nekk ca Sarakunda ñu ngi koy ziar di ko ñaanal fan bu gudd gudd yaram Serigne Gora Seye serviteur de l'islam ak Pape Amad Ndiaye bilal la ci jumaa Serigne Babacar Sy rabbil taala anhu ak imam Maodo Niang bi nga xam ne alxames si passé la fi ñëwoon eh, di eh, daf ay jàng yu am solo Euh, góor gi Ablaye Niang jànkatu xasaayit bu mag la ma nga ca Ndar Géej yal na yàlla guddal fanam di ko may fan bu gudd góor gu Bara Cissé ca Jaxaw ñu ngi koy ziar di ko nag euh, euh, di ko jaal raqam bi nga xam ne nag moom moo génn àdduna yal na ko yàlla xare àjjana waaye tamit waaliw kaamil Cerno Yaya Ba waaliw kaamil nekk ca Richard Toll yal na yàlla may ko fan bu gudd góor gu yaram ak Serigne Cheikh Ndigal Sène di jàmbaarul islam ma nga foofu nag ca Njàmbur Siin yal na ko yàlla fal jàmm suñu bàyyi suñu sëriñ suñu xarit Chérif Abdoul Moutalib Tidiane di sët direct ci sëriñ si direct ci Cheikh Ahmed Tidiane euh, euh, euh, bi nga xam ne nag moom la ñëpp dem di ziara ca Fès kii sëtam direct la di Chérif Abdoul Moutalib Tidiane ma nga ca Pikine di góor gu baax yal na ko yàlla may fan bu gudd góor gu yaram waaye Cerno Mouhamadou Amadou Ly xalif bu Daaru Kaba ca Fuuta nuyu nañ ko Cerno Cheikh Ñang xalif bu Boyna ji mu ngi leen di gërëm di leen sant mu ngi leen di ñaanal waaye moom tamit ñu ngi koy ñaanal ci yoon bi nga xam ne moom la tegu ak daara yi mu samp pour xale yi mën a am xam-xam yàlla ko yàlla defal jàmm Cerno Mamadou Lamine nekk ca Dungur Alpha ziar nañ ko Serigne Mouhamadou Moustapha Sow di waaliyu kaamil moom mooy xalifu maam Abdoulaye Sow ca Dagana di am Ahmed daam saw taawam ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal fan bu gën a góor yaram sama góor gu baax ga nekk ca Gàmbi ñaan ko Alaaji Ousseynou Diop ca Birkama bëgg bàyyi nee na mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar imam Mansour Seck nekk ca yëmbal yàlla na ko yàlla defal jàmm kii nag suñu bàyyi la woon dafa dudd àdduna di waaliyu kaamil di Alaaji Mbàkke Tàññaan rabi taala anhu ñu koy eh, ñaanal yal na yàlla lokk leeram waaye tamit doomam yi nga xam ne ñoom la fi bàyyi téel nañ ko lim leen dénk di bàyyi ñas Tàññaan coordonnateur daara ja ca Medina alaaji Mbacke Tandian xalif ba alaaji Omar Tandian xalif ba Serigne Bassirou Sarr nekk muhaddam bu mag nekk ca ngaan sayar mu ngi yónnee nuyoo ci yéen nee na ngeen gën a góorgóorlu te yàlla dina defar yëpp bu soobee yàlla ñun tamit ñu ngi koy ñaanal loolu Serigne Mame Samba Dramé euh, di xalif euh, bu alaaji Maktar Kala Dramé nekk ca Dramé ndimb ñu ngi koy ñaanal fan bu guddu euh, njabootu sëriñ Saliou Diouf bu Diouf Mbaaleen ñoom ñëpp nag ñoom ñëpp nag rawatina nag ki nga xam ne mooy xalif bi di Serigne Khadim Diouf ak jëwriñ bi di sëriñ Modou juuf di gaynde Cheikh Saliou Mbacké nee na kontaan na lool ci nuyu yi nga xam ne ñu ngi koy nuyu ak ñaan yi ñu koy ñaanal nee na kontaan te mu ngi leen di ñaanal moom tamit yéene gi am ci moom ak li ak moom mii nga xam ne mooy jëwriñ yàlla defal ko ñu bokk mu doon ab yiw alaaji Cerno bari fat fat nekk ca yof jàmmalaay yal na ko yàlla defal jàmm Serigne Cheikh Bara Amar nekk ca Naameen ñu ngi koy nuyu imam euh, Mansour Seck ca Yëmbal yal na ko yàlla defal jàmm Cerno Alassane Mbaye ak Cerno aliw Thiam ñaari ka waaliw kaamil nekk ca Fuuta ñaar ñii yal na leen yàlla defal jàmm dañ fi gudd yool te wér yàgg gudd gudd fan yool te wér ndax Thierno Aline Thiam moo jàngal Thierno Alassane Mbaye daal di koy jox baatin tamit muy borom baatin yàlla na ko yàlla defal jàmm Serigne Ahma Seck di xalif Serigne Alaaji Set sekk nekk ca Khourdan ci département de Koungheul ñu ngi koy nuyu di ziar tamit waa cin ma xam mboxoon mbokk Pape Cheikh Diallo yooyu di Alaaji eh, Idrissa Diakhaté alaaji Ousmane Diakhaté ak porte parole ba di alaaji Idrissa Diakhaté di imam ratib bi yàlla dafa leen jàmm waaye Serigne Djili Gaye bi ah, nekk Touba te di moom dañ joxe numéro dinaa ci ñëw te moom koy ziar di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram moom sëñ Jiri Gaye di waali baatin di dellu nag di gërëm bu baax ajaratu Sophie ah, Tall mi nga xam ne nag moom moom ah, suñu soppe bés bu ne mu ngi ñuy nga xam ne ci la ñu nekk moom ajaratu suufi taal yàlla ko yàlla defal jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu yaram yàlla defal ko yéenam foofu nga xam ne fa la nekk di alpha voyage ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñun mbokk yi kilifa diine yi yàlla fi yàlla yàggal ñu yàgg fi loolu te ànd ak wér ñu dëddu àdduna yal na yàlla xara ci àjjana yi gën a kawe yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot ñi nga xam ne ñoo fi nekk te nekk ak ñun ñu bokk ñoom jamono yal na leen yàlla may fan bu gudd bu ànd ak wér yal na leen yàlla sàmm worma bi nga xam ne ñoom na leen di wormal kilifa diine yi yal na leen yàlla gën a wormal lu raw lañ leen di wormal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yal na leen yàlla dafal jàmm mboolem kilifa diine bu ñu tudd ku ñu tudd ak ku ñu fàtt tudd yëpp nañu boole ñëpp tënk te yaan yéen bi ci ñoom la jëm kii de avant ñu ñëw ci Ablaye Wade kii benn waykat la sénégalais qui a grande en Guinée mais qui vit en France et qui rend hommage à Thierno Moulé Sow parce que lui il a dit que ne grâce à Thierno Moulé Sow il a découvert des choses qui faisaient des doutes dans sa tête am xel ñaar ci loolu dem ba découvrir ko mu rendre ko hommage un grand artiste guinéen qui vit en France et qui est sénégalais mais malheureusement il parle pas wolof mais il va aujourd'hui chanter en wolof et en guinéen tout dans le cocktail on applaudit très notre ami notre invité <laughs> oui mon ami euh, euh, bienvenue dans le plateau de Kouthia Show. Merci allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa sallam taslima. Je suis très très content d'être ici, je suis très honoreux Je suis sénégalais. Je m'appelle Dieng Amadou. Dieng Amadou Dieng. Voilà, mon nom d'artiste c'est Noble Dieng. Noble Dieng. Aujourd'hui, grâce à El Hadj Thierno Moule Sow, je suis venu au Sénégal. Ah, Voilà, c'est qui m'a acheté un billet d'avion, ah. qui m'a cherché le visa. Donc je suis là pour le rendre hommage parce que ah. c'est un grand homme. Il a fait des choses pour voilà, des actions. c'est un messager de Dieu. C'est ouais. pour le rendre hommage. Je suis venu pour le rendre hommage et dire à tout Sénégal que ce monsieur Euh, il n'a pas d'égal. Franchement, pour moi, il n'a pas d'égal. Cette chanson, tu l'as écrite en wolof? Euh, j'ai j'écris le refrain en wolof. Mais le le refrain s'appelle Tachulen. Tachulen. Voilà. Mais la chanson c'est la, la chanson c'est voilà, c'est c'est en pulaar. En pulaar. Que je l'ai fait, donc je le rends hommage. D'accord. Ouais. Euh, madame euh, euh, euh, Fatima Evans, notre amie dugal ñu li nga xam ne moom mooy woy bi ñu xool. Amadou Dieng. Merci. Tachulen, tachulen, tachulen, tachulen, pijama mulay, pijama mulay. Bien avant de quitter ce plateau, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites. Oui, oui. voilà, pour la culture sénégalaise. Oui. Et je voudrais aussi prier pour vous, oui. prier pour l'élargir Tchernomoulesso, prier pour le Sénégal. Oui, que Dieu vous donne une longévité. Amin, amin, amin. Barka ala jabali la itahu kasia mutasadian. Min kasiatillahi wa tilka lamsal nadibu hali nas. Lallahu yatafakkarun huwa Allahu allazi. La ilaha illa huwa al-malikul quddus. Salamul muminul muhaimirul. Azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ma yushrikun. Wa wallahu al-kaligul barigul musa yusawiru lahu al-asmaa'ul husnaa yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard wala yahuddu hifzuhumaa wal azizul hakim que Dieu vous donne la santé donne la santé à El Hadji Thierno Moule Sow pour tout ce qu'il fait lui donne une une euh, force extraordinaire pour continuer ce qu'il fait barki diin al islam barki suudu kaaba barki arfa barki mina barki allahumma salli merci merci mon ami merci mon frère merci tu nous salues euh, le marabout waay merci on est vraiment content. Euh, ok jërëjëf jërëjëf. tàcc na ko bu baax waay. mbégte ak contentement bu mag ànd ak yéen seen émission Kouthia Show di ziar bu baax Serigne Mamor Mbacke mu Serigne Habibou Mbacke caatu Serigne Mandoumbe xaban borom xab euh, euh, xab xab xab ga ca dédéy euh, borom daara alxuraan yi borom social ñu ngi koy nuyu moom Serigne Mamour Mbacke sama soppe moom la dégg daaj di way noonu dinañ ñëwaat ci clip bi ci kanam tuuti waaye nag di wax joyeux anniversaire à maam Ndeye Dieng fii de Djibril Diop ak Fatim Dieng depuis Yoff Euh, lii nag de la part de Assou Kassé di wax tamit joyeux anniversaire à Khalifal happy buzz euh, longue vie santé et de de la part de euh, la famille Fall Parcelles Assainies unité 21 joyeux anniversaire à Soxna Maam Awa Mbacke mu Serigne Modou Boussa Dieng ñu ngi koy ziar di ko ñaanal tamit fan bu gudd gu yaram dédicace à Arona Ba maire de Ranérou Ferlo bëgg Kouthia dédicace à xari Mbaye Kébé depuis Yoff Ndengaañ de la part de son anonyme depuis Yoff Ninat dédicace à Raymond Kébé Binta euh, ca pharmacie ba Madiba fan si Kouthia dédicace à grand-mère Adja Ndeye Koumba Diouf au chéri Mame Saliou Ndiaye les enfants depuis Kër Gorgui ak mama Amath Faye professeur ca lycée Ngalando Diouf ñuy am mbégte kontaan maanaam bu mag di nuyu tamit suñu soppe yi nga xam ne ña foofu di suñu suñu suñu suñu suñu suñu tata suñu lépp suñu xarit di ajaratu nday sufi taal mu cerno muntaga taal borom alpha voyage moom tamit ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd gu yaram suñu xarit la Matar Cissé Seri Adama Cissé nekk ca Gambie euh, ca Kotu euh, agent forestier la euh, dëkk ca ginnaaw pompier ñu ngi koy nuyu Serigne Djili Gaye bi ma fi joxoon démb numéro am na ñu ma woo ne ma numéro da leen échappé waaw Serigne Djili Gaye borom baatin bii am na ñoo xam ne numéro da leen échappé 77 144 05 02 kooku Serigne Djily Gaye ñi nga xam ne démb dañ da leen premier parti bi leen raw 144 60 144 05 02 77 moo jiitu boo ko defee dañ ko koy jot directement Serigne ji liggéey kii borom baatin la waaw ñu ko doon laajte numéro numéro ngi noonu léegi nag ni leen ko waxee Awa Ndiaye bi nga xam ne dañ koo décorer foofu ca Espagne di jigéen joo xam ne exemplaire la si Espagne jàppale sénégalais yi nga xam ne bu ñu amee tolof ak police Espagne moom mooy traduire prix boobu nga xam ne dañ ko ko def ndekete ni police bi du police bu ndaw ndekete ab ponkol maanaam bu ñu koy xayma daal ministère de l'intérieur bay joxe digal ñu jox ko police bu tërële fi ndax liggéey bu rafet bi nga xam ne moo ngi ko fay def nañ ko joxee prix bi nag nañ dem fekke ko ak fi ñu ko defee ca biir tërële fi ca Espagne. gracias gracias jërëjëf waaye kontaan na parce que maa ngi déggul olof aw Ndiaye liggéey euh, Sénégal nit ñuul gaal awa wax espagnol awa wax olof espagnol ñu xam awa Ndiaye lu ma dégg olof Awa Ndiaye moo tax Espagne la nàmp waaye Awa Ndiaye li mu wax espagnol ñun espagnol munul boobu saa moom def na bu gën a neex i ñu jox prix bi moom parce que liggéey bu mag la def jigéen góor xeex Espagne Awa Ndiaye wax kii lan la bii lan la boobu waa mu traduire Espagne ñu ñu xam ñu àtte Espagne xale jël gaal ñëw Espagne amul fu mu ne ñu woo Awa Ndiaye guddi mu ñëw expliquer problème mu réglé kon ñun jox prix Awa Ndiaye mm-hmm. prix bi nekkul bu ndaw Awa Ndiaye ci turu Espagne mm-hmm. roi d'Espagne ministre intérieur bu Espagne ñu jox yow bi si sa kan mbokk waaye ku nekk li nga namp ci nga defe teranga de kestana costana pocelli dartana ora kasi kancana graciasa bancorena tortokole kan kiscanna cara bantaralla e topore Sincho 4 Muncholo ne espagnolo traccare clandestine. Wow. Dopo lo con immigrazione clandestino. Cumprele. Naro cole ka manjai wow. awonjai. awonjai. Eh, awonjai. Dorse carna bore canta che se chiara con con messa nel signorità kii di gracia sesi tortenaare le Awa Njaay se keerena ko Awa morte baara ceebu jën wa sirkalla bartañiilak Awa Njaay cere cere mbu cere commissariat carkar kala bar koptene guddi ak bëccëg wallahi moo c'est vrai ñu xamuñu africain bii moo jox ceebu jën bii moo jox cere bii moo jox lépp bu lekk ñun yàkkal toppatoo indul jàmm jàmm rek laa dox bi prix bii na bu xeeb déedéet bul xeeb bii ban corte kana si toor nana barta kene ko sekon coor ka barakanta saare ken coot lillamara balle o <laughs> njaay tekarte amore njawar jom ponte si sinco kaapani booce gracias gracias señor sinco ko ne barte kene prié on to seccar tento kora kadi numéro on no barkana sénégal yaani clandestine oui yuute Gracias, gracias, Fiona. ¿Qué es? Gracias, gracias eso. Gracias. Charcari. Gracias, merci beaucoup. Ama jóg tànk jaay ndar ndar laa. Ama jóg sunu waay mooy soppe yónneen tey way na 570 poème jëmale ci yónneen tey. Modou Abdoulaye Thiam sama waay mooy soppe yónneen tey way na 570 poème jëmale ci yónneen tey. soo bëggee xam juddum ko jàngal poème la naissance. Bayu Mustapha Bayu Taha. bayu shafi bayu nura mooy soppe yonente bayu kinza bayu nazir lay wayal mooy soppe yonente bayu rashid bayu bushra mooy soppe yonente bayu shakur bayu hakim lay wayal mooy soppe yonente dundam yëpp jox na ko Mustafa mooy soppe yonente mooy du Abdoulaye Thiam sama waaji mooy soppe yonente way na say cent soixante-dix su boyam jëmale ci yonente waa Sénégal dégg leen maa ngi way Seydina Muhammad déggal Mamadou Abdoulaye Thiam président fondation Kër Rassoul ma ngay jóobe juddub Seydina Muhammad أفضل البشر ترحيبا جيدا ونبدأ جامعين كرك بسيجنا محمد جدو خروج رسول الله ببنيتها خروجا يسيرا دعي ولا مشعة ولا ضيق أو المن رابيتك عادة بدون تعب من سيدتنا عاملة وهب كرب مجدو حينما خرج رسول الله رفع سبابته mbégte ak contentement bu mag di nuyu képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission Kouthia Show foofu nag ca Espagne ca Tenerife ñëpp a nga seetaan Mohamed Abdallah Thiam suñu soppe la président fondation Kër Rasoul ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko fan bu gudd ak wér gu ci lépp loo xam ne mu ngi koy dox euh, gis nga euh, àddina bi noonu la gox boo dem am na soppe Seydina Mohamed PSL sur lui waaye Mohamed Abdallah Thiam moom da cee da cee da cee sori moog Njawar Ndiaye ma nga xam ne moom la ñu dénk Awa Ndiaye mii nekk ci Espagne moom tamit noonu la ñuy ñaan yàlla ànd seen ànd boobu yàlla yàlla dëgëral mu ànd bu rafet waaw lii ñuy def ci Awa Ndiaye nag wëllëre moo ñu ci seq parce que ku ñu gisee sénégalais bu am lu baax dañ ko ciy jàppale ñuy ñaan nag bés bu tegee tànkam Sénégal na ko jigéen ñëpp dem teeru ndax ndamu Sénégal la kat ak ndamu Afrique bu ñu demee ba ay tubaab di reconnaître ne kii nit ku ñuul kii moo tax ñoom ñu mën a àtte dëgg diggante sénégalais yi jàppante war a xale yi daw dugg ci gaal gi ñëw ñoom la leen service interprète ba ñu jox leen ay kayit kon kii ku baax la nañ ko jàppale te teeru ko te première dame na xam ne kat ah am na gan ndax Awa Ndiaye teg tànkam Sénégal gi waa groupe Kouthia Show ñëpp dinañ dem teeru ko waaye tamit ñu ci woo jigéen ñëpp ñu teeru ko ndax loolu am solo la waaw di delluwaat di nuyu nag euh, suñu soppe Baye Cissé waaw kéemtaan ma nga ca cité suprême di def lu baax yéen a ko yàlla defal jàmm di amaat mbégte contentement démb ba tey wax naa leen ko Serigne Djili Gueye bii nga xam ne dama joxoon numéro am te mu roneen am na ñoo xam ne ñu ma ko doon woo ci guddi gi di ma yàqal nelaw te yàlla koy mujj jox nag mooy numéro boo ko woowee directement moom ngay jot yal na ko yàlla defal jàmm moom tamit di nit ku baax koo xam ne wax dëgg yàlla borom baatin la yal na ko yàlla defal ay xéwal ci li nga xam ne tamit moom lay sumb ak doomu aadama yi waaye mbokk yi ñu am mbégte ak contentement nag di gërëm ñëpp nag rawatina ñi nga xam ne suñu ay soppe nañu te heure bii mu ñu ko seetaan ca Espagne Lamine Samba ñu ngi koy nuyu mu leen di nuyu yéen Lamine Samba ma nga ca Danemark nee na nuyu na leen nee na nuyu na sénégalais yi nga xam ne ñu ngi koy namm naan ko kañ ngay ñëw incha allah Lamine léegi mu ñëw bu soobee yàlla ñun Lamine Samba ñun tamit ñoo la gën a namm nit ku baax la nag borom jogante namm nañ la say ñaari junni ci couloir geeg foo ree door dàq bi ci kër gi Lamine yaa mu la ñëwal Lamine namm nañ la waaw delluwaat di gërëm nag Serigne Mamour Mbacké mu Serigne Habibou Mbacké caatu Serigne ma euh, Ndumbé xa xabaan moom sëñ Maam moo yàlla ko yàlla may far bu gudd góor yaram borom baatin borom ñaan ngi nii kii laa leen waxoon laa demoon këram di naan café kafe ba jeex xamul ku muy yónni waa ji toog nar a jóg nar a jéggi nit ñi mun a ko toogal waa ji toog mu yëngal cafetière bi sotti ma naan café xaw ma na fa café ba jógee café bi dàq café bi ñu doon naan ndax bi ma naanoon mu neex dafa jeex ma bëggoon tollanti mais bi ñu la joxoon moo gën a neex yi nga xam ne moo génn kon kii yàlla da ko may léegi Abdoulaye Wade suñu paam suñu maam góor gi El Hadji Abdoulaye Wade def na lu rafet mooy jubóog doomam Macky Sall sëñ Mountakha Bassirou Mbacké daal cee taxaw nekk témoin waa léegi Khalifa Sall ëlbatiku ñu daal koy bàyyi mm-hmm. te bàyyi Khalifa sàll mën naa indi tamit leeral yoonu Karim Wade mu ñëw màggal si xibaar boobu nga xam ne doom ak ndey dafa jege mm-hmm. xam ngeen ne saa yu histoire musaan am Viviane kan lay jàppanteel ku dul yaayu Marème fay nee na nag comme ginnaaw ay jàmm Ablaye Wade juboo nag Macky Sall moom Viviane day dem juboo ji ak yaayu Marème fay ndax comme que nee na moom yaayu Marème Faye yoonam nekkul ci problème politique waaye moom saa yu politique amoon problème Ablaye Wade ak Macky Sall war a doom ja moom li muy xëpp li muy yàq xeme yëpp Marème Faye yaayu Marème Faye lay xuloon parce que nee na moom du xuloo ak Marème Faye du moromom du xul ak Macky Sall du moromam waaye yaayu Marème Faye lay xulool pour Marème Faye yëg ne ah yaayu Karim mer na léegi nag nee ginnaaw ay jàmm moom tamit dugg na ay taraangam taraangam yooyu mu dugg nag moom lay dem yebbil yaayu Marème Faye ñu seeti ajaratu Viviane Wade mu wax ñu taraanga yi fu mu ko yebbee Viviane a ci juddu bi laa lay woo am ci taar bi laa lay woo balaa may ji ka yéen ni ma voilà tegal baax def jàmm rek mbaa yéen a ci jàmm jërëjëf jërëjëf ginnaaw ay jàmm suma borom kër Ablaye comme que moo dem ba jox loxo Macky man tamit dama ñëw pour tuubal jéggalu ci kanamu ajaratu yaayu Marème Faye amel naa la àq boo xam ne ajaratu sama ko baalul du baax ndax bi nga xamee ne ma ki jàpp na Karim tëj ko ci kaso bi ah. mayu ma la dara lool gas ma suul lool na kos ma daal koy roof ba mu saf di la tappaas dina indi histoire mosoo yëkkati sa làmmiñ tontu ma ajaratu nga nekk sa kurus di ñaanal sa doom nekk ci kurus di ñaan yàlla ba jàmm ji am kon ginnaaw ay jàmm moo taxi mën a dama lay yebbil ay teraanga yoo xam ne moom laa la indil ndax ñun yéen olof yi boo leen xulowee da ngeen di gën ngàddu guro ku ne jox sa morom nga sàqami loolu weesu na léegi ñu ay tubaab nañu te ajaratu laajte naa bu baax ndekete ajaratu yaayu Marème Faye ci yax bu rëy la bokk ah. man suma ma ko xamoon duma ko sax tooñ ndekete sama gént yi ma doon gént ñu may ndulli yooyu yëpp ñaat doon yàq mel na xame ajaratu rek la ndekete ajaratu bi ma ko seetee ba ci biir sama juróom-ñaareelu juróom-ñaareelu càmmenu maam ah. mës naa nekk ak ñoom ay xarit mbokk ah, nañu ndax man miy wax ak sama yaay Elisabeth moom ak sama yaay seex la woon Elisabeth moom ak Émilie ñoo bokk ndey ak baay Émilie nag moo fi jóge dem sëyi Afrique nekkoon jabaru ambassadeur bu Sénégal ca Ndar ba ma fa demee moom déglu leen ma li yàlla li muy def Émilie tubaab la ci ndey tubaab la ci baay bi mu demee ci ambassade bi nekk Sénégal borom këram ñu affecté ko Ndar ndekete Émilie bi bokk sama yaay Élisabeth te taawloo Adrien Adrien am ci Raymond Raymond moom la taawu Émilie Raymond boobu nag jël fa soxna soxna ñaan ko ndiku ndiku moomu ndiku moomu bàjjal ndiku ndiku la tudd ndiku ndiku fay ndiku fay boobu ndekete ak yaayu yaayu maram fay raqa raqam bu jigéen. moo jur ndiku fay. Ah! kon man sama yaay. mbokk fay na. sa sëram raqam bu jigéen mooy sëy ak ambassadeur bi jël Raymo. Raymo nag moo takk ki nga xam ne mooy ndiku te ndiku ak yaay maamu maram fay benn bopp la. kon kon mbokk feeñul. gis nga rek tubaab dañuy yaakaar ne tubaab ca tubaab yi nit ñi ñëw te nit te dañuy juum ndax doom bu amee kër ndey am kër baay man Adrien mooy suma baay Elisabeth sama yaay Justin Justine Martin Martin Riku Jean Pierre Tirmou Christophe ak Loreer Christophe ndiku moomu nag li mu bokk ak ajaratu yaayu Marème Faye moo tax sama doom bi nga xam ne sama maam sama yaay ah. sërëm bu jigéen bi jur rey moom mi taawloo bi mu taawloo moo dent ndiku ndiku nag moo jox sagaru jaam ki rey kon loo moo tax ma ne ajaratu man dama ñëw pour tuub baalu. waaw waaw indi naa la bong bong pour xale yi ndax sa yi ñoom Amadou xale yi ca kër benn ca bonbon ya. indil naa ko ordre Javel. pour xam naa ne ajaratu day xëy di jàpp loxo rek ndax ñëpp koy bëgg nuyu. bu nit ñi demee mu raxasu ba mu set. may ko ci meew bi ndax mag meew lay naan. waaw te ajaratu yoonu Makka dafa sori. waaw <laughs> eh, ñaar ca ma meewal ko. waaw ñaar ca ko defee nag teraanga ju mag ah, saabu. xam nga magu démb ba saabu ordinaire la ñu xam ak saabu olof. moo tax ma jëndal ko saabu ordinaire. waaw waaw daar bi. ndeysaan. Viviane. teraanga gaa ngi. teraanga jàmm ak salaam ak mbok dëgg la ndiku nag am na fa doom. Ah. doom bu jigéen. yaa ji tuddee ko Émilie tuddee ko sama yaay Elisabeth. baa ji tuddee ko ki nga xam ne jabar ja tuddee ko yaayu Marème Faye mii moom lañ koy dàqantale xale bi moo tax ma ne mbokk feeñ na mbokk feeñ na ma ñëwoon doon jéggalu rek ajaratu lii ma def nii xeeb naa ko Karim mm. rakku Macky la Macky magu Karim la Ablaye mm. yu Macky la mm. Macky doomu Ablaye la man tamit yaayu Marème laa Marème yaayam sama càmmin la bu jigéen ah. kon jeex naa jàmm jeex lii la olof Njaay wax te doom bu amee kër ndey dee am kër baay xuloo daal jaru ko fi ñun ñëpp ay mag nañu dañu doon lettante ci ay jamono di xàlli teeñ dina yëpp dëkk yéen a koy dégg di fuddanu yooyu yëpp daal ajaratu daal bu soobee yàlla ah. bëgg naa daal ñëw nga jàngal ma nu ñuy fuddanoo ah. nu ñuy xàllee bopp bay rëy teeñ yaa dégg jëmub tuuñ bokk natt ah. sànni jamara yooyu yëpp nag bu leen ma wayal <laughs> man mii moom sama wax mën naa ko jël bu leen ma wayal bu leen ma tëjal de doom damaa ñëw juboo si joxaguñ ma loxo ngeen ni wappar wappar naan Viviane dama ne doom bu amee kër ndey am kër baay ginnaaw ay juboo comme que Macky yaram ba tàng na ba mu bàyyi Khalifa kon xanaa Karim dina màggal si bu ñu kenn rey yow bu ñu kenn faale tamit bi eh, waaw waaw

ajaratu baal ma damay jégg baal ma ajaratu baal ma damay jéggalu baal ma baal ma